bi Duuta Mbaay la ko def Modou Lo dama ko ne mu fexe muñ tey sóori moromam mu leer naññ mukk ci àdduna mukk ci àdduna courant du sondeel Modou Lo dama ko ne muy sóor ay moromam te bañu ñoo ko man fi fii affaire Modou la dix defet sa Modou Lo la ah mu muñ rek xala la li la quoi defet sa Modou Lo la non jamais man ah man moom dama découragé xaw ma keneen man dama découragé. Balla daf jaay doole daf koo jaay xel te Balla boo gisee combat bi da koo dominé Balla dafa tey ci combat bi jël ànd ak ngeen ni kii di Modou Lo dina ñàkk combat bi. wallaay as yi man jàpp naa a ñàkk bak dañuy dem ni ñuy ñëwaat ama seen leen man dañu neexoon man loolu man um, farlu ma ci kenn ci ñoom ñaar waaye da daan par uh, ëpp doole nag. dëgg dëgg da koo ëpp doole xool suñu xool dafa sedd dafa sedd dafa sedd suñu xool dafa sedd. jël ma andi rek gis nga combat bi barke alxuraanu kan da ko war a duma dan ko. jàppoon ngeen kii di Balla Gaye am loolu amul wax amul sax débat amul wax da ko dan ko. supporter Modou Lo. Modou Lo 100 pour 100 Modou Lo tooñ rek. non tooñ na leen na kii sigil mais yàlla moo ko dogalul. mais yàlla moo ko dogalul. ngeen koy wax doo dugg ci yàllam toog. mais dañoo jàpp ni kii di Balla Gaye du ko. war a bombardier waroon na koo yee. dañ ko doon ñaaxante Balla Gaye du dara. ay Dakar soof ñaar yoon du moroomam. bak Serigne Sall du moroom fii mu 10 combat du moroomam. mën nga yaakaar ne Balla du moroom Modou nan nangu rek. man Modou li ma koy wax moom ah. man Modou Lo mbër la mbër la ndax xam ne Balla Gaye da koo man na gëm boppam rek yàlla baax na quoi. xam nañ ñu xam na lii la wax Modou Lo. Modou Lo ñu ngi koy waxal ngir yàlla bu muy jaay suñuy bëgg. laa daan dëgg neexul bàkk tekki 20000 dama ko bañoon ba tekki 20000 ci ba. waar rek laa koy wax bi defar la. bi neex Balla Gaye da ko lim koo mënee. da Balla Gaye mën naa daanaan Modou Lo. Balla Balla moo mën fukki Balla Gaye waaw lu ndaw la war ko jutal quoi ndax mu loo jigéen la quoi waaw war koo jutal. koo juutal lu ko bës def da koo duma juutal ko daan. fecc bu bees bi la gon pàcc gon